waaw sama doom la booy xool falang ak Mbaye Gueye booy xool falang xool Mbaye Gueye xool Mbaye Jojo xool Ousmane Mbeng Mbaaw xool Modou Diaw Mbaaw looy xool ci lébu gi daf ko doon ñoo ñoo ñoo ñoo ko meññ ñoo ñooy ay maamam. kii kañ ngeen nangoo ak mbërëm. ñan ñooy. kañ kañ ngeen nangoo ak mbërëm. bi mu juddoo nangu ndax maa ngi maama ma ak baayam magi baayam maa jëlee papaam Thiaroye moom ak Sandoy indi ko bokk jëf muy fubal 6 ak Sandoy di fubal 4 des fois ma piraté ak Sane yéeg 6 papaam fubal 10 maa ngente yaayam maa ngente papaam xanaa ko yaay maama pire la maama yi maa ngi nuyu lan. yaa dugal ay. waaw denc ko ba bala ba le 24 décembre. ba le 24. décembre. waaw mais ñu ngi sant yàlla rek di ñaan sunu suñu borom defal ñu jàmm waaw loolu la rek. léegi a nga wàcc aéroport rek jubal si fii te dama wàcc aéroport si fii quoi. lan moo tax loolu Siteu. wala nga namm lamb. non ndax Siteu Siteu moo tax ma ñëw lambu ma lambu ndax maay lambu waaw Siteu moo ma jaral ma jugee aéroport jubal si fii direct you know di nga ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam ndax bu ma amee bu ma day mel moom moo am ndam moom tam bu amee ndam day mel ni man maa am ndam. noo ko gisee moom Siteu. alhamdulilah gis naa ko mu ngi si dara. waaw mu ngi si dara critique yi bëri woon na mais gis naa ko liggéey na. Lac de ko gisee. waaw liggéey liggéey na Lac moom mës na liggéey mësul la maanaam voilà moom moom day liggéey ndax daal respecté bëre am na lu ma leen expliqué mais dañuy ñaan yàlla suñu borom yàlla suñu borom mooy ñu ndam seddu guy si barke Seydina Mohamed. comme am na lu ñu war a seexaat damay waxtaan ak père tooga ci digg bi waaw ma bàyyi leen ñu waxtaan ak père taf taf bu ko defee ñu yéegaat ci kaw wala ñu dem ci mikaay Lac de Guiers jaajëf un deux waa gars yi ñu ngi ak le grand champion de Thiaroye yaakaar lébu gi di gis seen seen affiche ah. kon donc affiche yi ngi lay nuyu bàyyi la nga ñëw gars yi. waaw maa ngi lay fay sunu père Khadim Ndiaye ah maa ngi maa sama père Pallou Diop di yàlla bu baax baax di ñaan sama yaay yàlla fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam sama papa ak yàlla nañu yàlla xaaral jënd firdaws ak ñu ko yàlla bu baax di ñaan Sénégal yàlla na fi bu baax wér waaw ngay préparer ce combat. le 24 sa doyen. un très grand champion. une, une légende vivante comme ni koy waxee moom Bombardier. ñoo ubbil la bunt may la chance bu bëreeg yow nan nga fas yéene aborder combat boobu. waaw avant loolu dañ koy sant dañ koy sant bu baax a baax ndax sunu tons la. waaw ndax tey ji boo xoolee grand contre petit dafa xew. ndax boo xoolee six personnes mënuñoo nekk di bëri seen biir rek. déedéet kon lamb ji du dégg. waaw léegi dañuy may nag seen i rakk saas pour ñuy ñëw jaawaanloo ak ñoom. ndax ñoom dañu leen mayoon ba ñu ñëw. exactly dañu mën a delloo. buum sa booy booy mu ngi noonu noonu la demee nag. mais maa ngi koy préparé ànd ak samay mbokk. Mhm. waaw lu lamb ji laaj rek incha allah dinañ ko diggante bi nga ñëwee bi nga bi nga bi boole am. waaw ñëw bu normal la gudd na wala gàtt na. diggante bi nga ñëwee tey dégg naa tey nga ñëw. maa ngi nii doog a egg si sa sama gale donc sa combat. un mois un mois un mois moo ko des un mois nga weccit. gàtt na wala baax na. non baax na ndax man fi ma nekk maa ngi doon yëg din. maa ngi doon contact maa ngi doon boxe maa ngi loon dem salle. ndax fi ma nekk mooy 971. ok maa ngi maa ngi 971 uh, laa nekkoon di wax thank you uh, my coach uh, Ramzi in the Ramzi and what's your name again Malik you know thank you so much it's the family you know ñu may dimbali di ma tàggat lu bëree bëree bëri. waaw di daj ay coono nag. di xeex ak ay pukkal yoo xam ne 130 kilos nañ 140 kilos. waaw. sant naa yàlla bu baax instant je suis prêt. bu doonoon suba suba suba suba. you know pare naa. noonu euh, dama gis ne euh, tu es chargé là tu es tu es plus que costaud pour lan nga chargé parce que Bombardier xam nga tey jii mooy li may wax rek man ruus naa simeeku si géew ñu ne kii liggéey wi. sama premier sama premier défaite loolu la. Mm-hmm. te Bombardier bu ñu simee ko bu ñu sumee ko ko bëgg moom laa lay expliqué bu ñu sumee ko du am dara lu may indi lu may yu ëpp si kàttanu suñu borom te xale la xam naa lu may def xam naa lu may lekk xam naa lu may naan ay loxo yu wóor laa nekk. mais yéen ñaar da ngeen a bokk ay langues yéen ñaar da ngeen a bokk arène bi bokkoon simple bi léegi bokk euh, li ngeen bokk MMA bi mu jaar gauche di dóor nga jaar droite di dóor. loolu Sénégal moom moom moo gagné ci wàllu noonu. bien bien yow boo xoolee tey jii man ba may génn sax ay nit yoo xam ne dëkkuñu Sénégal. Hmm. di ma supporter di photo ak man di defante ak man lu ne. Hmm. te doon ñu Sénégalais. kon international bi ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax ndax nit ñi xam nañ xam nañ ñu bu baax a baax. Hmm. comme Sénégal ni ñu ma xamee international noonu lañ ma xamee mais loolu yëpp dañ ciy sant yàlla bu baax a baax doon xale liggéey si bàyyi lu baree bari fi ko sa àdduna donc loolu mais am na côté boo xamante ne da ngeen ko bokk. waaw lépp lu MMA. waay xam nga ko. xam na ko waay moom xam na ko mais mel ni moo la ci jiitu. waaw moom mais yéen ñaar. est-ce que mën nga taxaw di xeexante boobu dégg ngeen di dóor di ko bañ dóor mu ma dóor la dóor mu dóor la bien sûr mën na nekk ah déet waay non mën na nekk mën na nekk xamal tam moytu xamal tam mën na nekk ah. maanaam bombardier du man maa koy reculer du ma ko reculer ah. zéro reculer mukk bombardier ku ko reculer ah. moom day ñëw dañuy daje léeg-léeg bu ñu daje rek yaa ma gën a xam weccatu sew fi mu dem ah. voilà man dama ne naa bàyyi rek. wax nga dëgg ah. parce que comme comme comme maamam maamam. ah naa la bàyyi rek nga yow mii sa muy sa doom. moo tax ma jël rek. nga posé ko question yi. ni nga moomee noonu laa moomee rek. voilà waaye yaakaar naa suñu la. waaye yaakaar naa ni. Ah. soo ko déggee muy wax. Ah. nga xam ne am na lu bari lu mu rassuré. Ah, si waaw loolu nag dafa baax ci mbër aussi. baax ci xale. rek rek c'est un leader boo xamante ne. waaw dafa am confiance. waaw mais confiance baax na. waaw mais nag confiance de trop nag moo jar a moytu. moo jar am confiance de de trop baax na ci mbër nag. waaw waaw waaye am na bis yoo xamante ne du laaj confiance de trop. da nga naan tekk rek. bi ma ko gis muy bëri ma bat ah. confiance na mu si bëree. waaw bi nekk ci ànd ba aussi conscience bëree. waaw mais dama un lutteur boo xamante ne am na expérience. waaw est-ce que dama koy laaj ndax jar na confiance de trop. waaw mooy li may wax rek xam nga tey jii maanaam mënoo bëreeg sa bëgg am confiance doon yenn confiance yi quoi mënta ne mais dañ koy jox bis bi mooy la may war rek bis bi lu mu laaj ak moom la ñuy def ndax tey jii lamb dañoo soxla waaw ndax boo xoolee suñu ganaay bu ñu bëree bëriwaat dañuy bàyyi kon ñun ñuy xale yi lamb ñun lañ gën a soxla kon dañuy def jël suñu temps di ko togg benn ak benn mais du ñu ñëw rek ne ñun ñoo mën ñoo ëpp doole non non dépassé naa loolu non euh, ma gis ne aussi euh, rek may laaj ndax dangay xeex ak Bombardier wala dangay bëre ak Bombardier champion. lu mu laaj rek moom laa lay expliqué père lu mu laaj rek. bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma. papa nga ñun tamit ménager lañ papa lañu mais li ñuy laaj fa ñu tontu ji. non non ndax da jiyaat ak moom kon fa ñuy tàkk li ëmbat seen ba ak tabatin. waaw wala ñëw jàpp ko organiser ko ko daan ko ndànk. ne ko grand salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw moom la lay rek. lu ma laaj ak géew bu fekkee dañuy xeex dañuy xeex bu waxee laajee bëri dañuy bëri. mais naa am tam rek bu ma ko amee baax. ah xam ne dama moromam. waay na. xam nga tey boo déggee mu ne la doonul sama morom mooy maanaam moo ma jiitu si làmb moo ma def lépp am na doon na doon arrêté deux fois yaa ngi dégg doon suñu mag doon suñu toos. waaw ah, loolu dañ koy nangul. respecté bu baax a baax. bu ñu respecté wul suñu ay jan nañu respecté. mais dina la laaj la. waaw li muur loo def ci Ama Baldé ñëw wane loo xamante ne mbër daaw ko wane. waaw maanaam lépp luy gàllaaj. waaw tegu ko ne ñëw dem ba ba mbapat. ndax xaar nañ loolu. dina def ko loolu du ma ko def. doo ko def. lu tax ma koy def ndax lamb lamb nañu wax lamb dafa am Reug rek kenn du ko gis naka entraîné wu kenn du ko gis naka newoo si état kenn du ko gis naka kii day day day day dox kenn du ko gis yaa dégg mais maanaam lamb nañu def lamb lu mu laaj dañ koy def ginnaaw la lamb moom amul ay lii laa mel ne lamb saytaane la dañuy def yëfu saytaane rek ànd ak lamb même même contre Bombardier mi lépp lu mu laaj dama koy def incha lu mu laaj ci barke lu mu laaj ci kàttanu suñu borom dama koy def waaw loolu moom incha allah rabbi voilà. waaw kon de man euh, maa lay maa lay souhaiter bonne chance. jërëjëf Père yow suñu Père dañu lay ziar bu baax mais mais mais Moussa Ba. waaw xanaa ñu bàyyi ko mu woo euh, lëbu yi. waaw ak ak penc yi. ak ak ak séeréer. waaw waaw ñoom ñëpp rek waaw. maa ngi fukki penc ak ñaar yëpp. waaw képp kuy bëgg Reug Reug maa ngi fukki pecc ñaari leen wax na seen doom am na làmb le 24 décembre incha allah rabbi ah euh, di wax waa Thialane Dionewar Niodior Falio Sow Basar Basour Ngadior ah waa Jinda ah. waa Fimela waa Ndangan Samb waa Diofior ah ñëpp maa leen woo waa Mbeelengi Gandiaye man faa fa xaw ma sunu ñëpp maa ngi leen di si combat bi ñu jàpp si ah am nañ seen doom am na combat incha allah yorob yàlla suñu borom defal ñu ndam incha mais ñi nga lim yëpp rek foofu yëpp dama faa bëre. walaay laa si dama faa bëre dama faa bëre. ah dafa dama faa bëre. waaye mënoo faa dem ak laaj rek ñoom laaj rek ñoom lay ci lu mu laaj ko incha mu fàttali la ko boo ko xamul est-ce que xam nga ne mbërum bu ñëwee Dakar la boo koy tëral dëgg la wuy lay wax moo tax may maa ngi nuyu fukki pëcc ak ñaari fukki pëcc ak maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax seen doom am nan la am nañ ci gën a jàpp incha jërëjëf. waaw Lamine maa lay delloo ziar. waaw ci sa grand combat bi Lac de Guiers Siteu. waaw li ma gis nii nii nii Lac de Guiers moo gën a pare Siteu. li ma gis nii man Lac de Guiers moo gën a pare Siteu. moo gën a pare maanaam moo ëpp doole wala moo. waaw si wàllu doole laa